alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa sarrif wa karim ala sayidina muhammadin alhabibil mahbub al asimil jaa'i al alil xadri taal aminu wa imaamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka anta alimul hakim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñëwaat nañu ak ci jotaay bi ñuy am ak yéen altine bu nekk jotaay bii di njàngalem ñu baax ñi fi jiitu woon ñu tànnoon ci njàngalem mel na mag nag wax maam Seyd El Hadji Malick demoon ci kàggoom buri téere lool fa tabaarakallaahu ñu rocc asi téere su néew ay kayit te njariña làmb àdduna làmb alaxira muy téereem bi mu tuddee sajurul xulóob di ci jàjj xol yi an xubbi daarul xalóob ba walis lool ñuy sopp kër gi di këragu ràkkoon ñu amoon ak ci yéen nag fukki jotaay ak juróom benn tey nekk sun fukkeelu jotaay ak juróom keroog bi ñuy yëkkati jotaay bi ñi ngi tegoon sun loxo fi maam de waxee àdduna de lu néew la waaye ñu sàggan ñoom dañ koy gis ne duñ fi jóg lu yàgg la te àdduna googu wamaaxiya ilaa lam xawtoon wa xuróobu kon mbokk yi ñuy commencé fii maam di waxee aqi fajtahit fil yowmi wala am sufa itun wa fi qadina yaasal waani laqa yóobu ndax àdduna kat qalilun baxa min xaal qalilu walaw dara maqaabataha man raamaha kon koy la yo xoobu waa ñu ànd jàng loolu ah, mbokk yi maam dafay wax ne àqi yow sama mbokk faj taxit na nga ci tey fil yow mi ci tey ndax wal am su démb faayitun wéy na mënutoo ca dara te woo fi xaddinaa bo woo fi xaddinaa nekk na ca suba la xayoo boo ak kumpa yaasal waa ni yow aji dooyadi yow ajo jeex ji maam dafa bëgg a wax ne yow nekkal rek kun ibnu waxtika nekkal sa doomu waxtu farlo rek Eh, fa tabaarakallaahu ndax doomu aadama eh, dafa war a farlu yonent bi sallallaahu alayhi wa daana xiir lool ci ay ñu bëri di joxe ay wirda eh, bokk yonent bi damay wax ne moo dàqoon na joxe wirda waaw loolu sax nañ ko beral audio boppam waaye lañ bëgg a wax rek moo di ne maam li muy wax ne nit dafa war a farlu ci boppam ba ëllëg bu fi jugee nekk ci jàmm di ree di bég benn boroom xam-xam sax way nag nee na Eh, yabna adama waladatka ummuka baakiyan waaw wanaasu yafraxoona surura waaw waj at li nafsika loolu laa gënoon soxla waaw waj at li nafsika an takoona isaa ba kaw fi yow mi mawtika daa ikan masrura nee na waj na nga farlu fi naf ci sa bakkan bi an takoona ba bu ñu nekkee fi yow mi mawtika ci sa bisu dee bi di jooy yow woccal at li nafsika an takoon isaaba kaw bu ñuy jooy fi yow mi mawtika ci sa bisu dee bi eh, daa ikan masroora yow fekk yow ngay reeta reega di bég waaw li nafsika an takoon isaaba kaw fi yow mi mawtika daa ikan masroora nee na yow doomu aadama bi nga juddoo yëpp na wala dat ko ummu ko yan bi la sa yaay juree da nga da jooy ci sa jooy gi moo tax nit ñi yow yaa ngi jooy nit ñi ree nee na at kon farlul ci sa bopp ba ëllëg ci boo bu nit ñi jooy yow ngay ree waaye ngay jooy nit ñi ree ëllëg nga jóge fi nit ñi jooy ngay jooy mbokk yi loolu yàlla nañ ci yàlla musal loolu rek di maam di wax maam ne àdduna bi xalilun lu néew la baxaa loo xam ne des na ci min haa ci moom alxalilu lu néew àdduna bi dafa néew lu bari dem ci lu néew des ci mbokk yi loolu nag dégg ko Euh, lii dafa néew lu bari dem na ci ankay lu néew lu bari mën na caa dem euh, man mbokk yi euh, kaw kaw laa bañ nekkee ca àll ba léeg-léeg mën nañ ne oto jën bi de ñëw na waaye tey li mu andi bëriwul xam naa njawee leeg sekkee ni ngeen baal ma fa tabaarakallaahu oto jën bi limu mu andi tey bëriwul lu tuuti la andi soxna ay satu sax fek naa ko fa mu jël ci lu bari kon xam naa la ca des warta bëri ankay waaw lu néew la indi soxna Aysa jël ci lu bëri lu néew des ci danañ koy wax euh, wala ma neen misaal sax yonent bi wa sallam ci ñëw moom rek nee na man sama ñëw rek day wane ne mu jëkk àdduna ci la ñu nekk ndax itam beneen yonante dootul ñëw bokk na ci yonent bi wa sallam te yàlla li mu yónni ci ay yonante bëri na mën na ñetti téeméer lu topp ci ay yonente boo demee waaw kay boo demee ca jeexantalu Ibnu Azer boroom téere ba ma ngi cay wax ne ab yaatuhu arbaata asara tasil ma asalaasa mi ati add rusul nee na ab yaatuhu sama nos at bayiti téere bi arbaata asara fukk la ak ñeent yoo xam ne tasil jokk na ca ma asalaasa mi ati ñetti téeméer loolu kay adadu rusul mooy li mu yonente yi moo tax samay tuxoo bil mursidil samay tuxoo bi mursidil muhiini ala dururi min hulumi waaw waaw ñu ngi jégalu loolu pour doon wane rek la euh, li mu yonante yi euh, maam ne àdduna bi lu néew la xalilun lu néew la baxaa loo xam ne des na ci min xaa ci moom alxalil lu néew lu néew lu néew la àdduna naka jekk yàggul yàlla yónni ci ay ñett téeméeri yonante fukk ak ñeent denn des ci mu ñëw mooy mujjantal kon lu bari dem na lu néew a des euh, fa nee na walaw dara ay bu xamoon maam nee na ay bu xamoon maqabataxaa ak jeexam ak mujjam kan mooy xam man ka nga xam ne raamaxaa mi ngi sàkku àdduna àdduna dong koy tax a jóg mooy eh, alxaafiloon kon de dana bu xamoon walaw dara kon de dana bàyyi lépp la yaxoobu dellu ca boroomam ah, ah, fa tabaarakallaahu ah, kon xam naa ñu yemale ko foofu rek indi ci li nit di farloo wala bokk ci li bokk bokk na ci li nit di farloo pour tey pour mën koo tonawoo pour ëllëg yowmal am ak itam fii ci àdduna ah, di wax ne ñu ngi ci jégalu bu baax a baax la ciy njuumte ci wàllu yàq ñu ngi koy jégalu sunu borom li ciy waax ñàkk àgg ci wax ju ñàkk a joxe orma ñu ngi leen koy jégalu di jégalu itam mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne nekk nañ ci daara ji ñëpp ñu ngi leen di jégalu ah, suñ ñàkk ak ah, man dong la. di wax ne doomu aadama moom njuumte da ko yomb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax kullu bani aadama xata ñëpp dañuy juum wa xayru xataa'ina at-tawwaabuun di ñaan yàlla nag jaxalana allahu min allazina yastamihuuna alxawla fa yatabihuuna ahsana ulaayika adahumullahu wa ulaayika humul ulul albaab yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne buñ déggee wax dañuy xool la ca gën a rafet ñu topp ko yàlla ni ñu ñooñu ñoo am ak njub te xel kon di wax ne haada ma ahlam walaaw ahlam fa maa kaana min tawfiqi fa min allah ndax ilayhi tawakkaltu wa ilay unib wa maa kaana nag min taxsirin aw xatahin aw soo i fahmin fa min nafsi wa min a seytaan waaleykum salaam wa rahmatullah